falang naa ko it cee ba dootul ñawit fobal nag sa bopp ak sa mbir def ci man te def mam murit dëgg buy sab xarit dinaa wax ci yow lëf lu tax ñépp xam nisam kem amul soow ak penku it ba ngay jàpp xaalis di dëddoo ka bañ akay sànni ci ga dex ngaraw képp nit ba ngay wéet akay muñ akay dunde ñax fa yéefar nga fam ñépp not ba ngay jàng kay bind ñuy fooka moy fasag wet nga sut mbàkke mboolem ña sut ba ngay jaamu yàlla ka way Mustafa te kenn kul ak nga am say mébét ba ngay xiifa kay marte dencoo bu réy kenn say lor nga semmal ñamat balay karce daa wër gënaaw ak kanam te yàqul la ngay def ngaraw am xelit ba ngay damm sag nii te kay togg ñam ku jóg romb wey nga dib yaaramit ba ñuy naan kay foona kay tuxu di saw fi sag wet nga am lol bu feeñoon nu ba kenn déggatul lëf ci yow déggatoo ci kenn lëf nga am may gu kenn foogulit ba ñuy lii takay maa ngay jàpp yow akay julli boobee nga saf yàlla yit bañuy woote ngay julli bañ wuy ji woo bësal mël nga def mbég ca ba yit ku lay ci lëf moo ko def ndeyaw dooma roomam te dooma samit ku lay toppandoo tee mu dox fee nga dox ba ñëw fii nga ñëw lii rafet moo gënit te kuy ruuja kay bay bu dee toppandoo kafar man ku dof ay mbiram yàqu it def tey lu dul jox la boppam bu wér te bañ laa defum naw la day alkukat danga dox fa mbër yépp dox nag te dox fa kenn mus la dox am nga jaajëf jumat danga boole waa àll ak waa kërit toraxuloo te jël seeni ndam lii rafet demoo wàcci saw nit ñu bon alkufar danga dem te fam ñépp yóbbaale fat danga man ci kër man ci ab àll yit ku xam-xam ni yaa ëpp ñëw yow ñépp fit danga man ci kër man ci ab àll yit ku xam-xam ni yaa ëpp yow ñépp fit kërëg àll ñoo bokk nag yam fi yow lu am doo ca bew doo ca jékki xulit ku dul yow gëtam yaa nga jëm genn wet te yow nag sa bët yaa ngi jëm gépp wet kudul yow dafay may boroomam bëbët bu wér mbaa mu far may njabootam gëbët nga may yàlla yow bët te may ñépp bët sawet génn te